ñu sa place de l'Obélisque ñenn si ñoom teg nañu leen loxo lu toll si ñaar fukk si ñoom jàpp nañu leen yóbbu leen si commissariat yi waaye nag xamuñu fan lañ leen dugal yéen ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen journal bi nee na toll nañ si ñaar fukk ak ñett seeni avocat nee na ñu xamuñu ana fan gi di source nee na collectif ñoo lànk ñoo ba ñoom nag nee nañu daal tere gi nga ne tere nañ leen ka niki démb bu ñu daal amal seenu marche ñoom mbir moomee naqari na leen lool yéen kaay gi di enquête nee na ñi nga xam ne ñooy takk ma police yi démb démb daal ñoom teel nañoo sam lool place de l'Obélisque fees ko dell yéen a kaay gi di la Soleil ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall nee na nag lu jëm ci wàllum xeex wàllum corruption wàllum guerre xeex la boo xam ne bis bu yàlla sàkk la ñu ko war a amal ndax na corruption maanaam di guerre kenn mënu ko nangu te nag bokk na ci liy daanil am réew yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëyaat fekk fa borom réew mi daat nay wax ne Sénégal nag dañoo bëgg mu nekk Sénégal koo xam ne maanaam du am ay njuuj njaaca du am fraude du am corruption maanaam a kaay gi xëy di metti geek ñàkk gi gouvernement bu Sénégal ñoom nag nee nañu daal dinañu gën a nag baral jéego yi yéen kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibara naan ñu Seydina Fall Bougazelli mi nga xamante ni moom la doon tuumaal lu jëm ci wàllum fuub yi démb nag am na benn vidéo boo xamante ni bu senn la bi nga xam ne bi ko gendarmerie di teg loxo moom Bougazelli bi ko gendarmerie di jàpp ak phobie yi loxo ci poos moom Bougazelli nag ci biir vidéo bi maanaam nag ma ngi wax ak gendarme yi naan leen gars ko gérer waaye nañ leen ko gérer na ko fan lañ koy gérer na ko nañ dem Bouga Sali na leen noonu loolu dey doy waar Bouga Sali na leen na leen ko gérer fii yéen a kaay gi nee na Bouga Sali dafa jékki-jékki rek nag daal di yuuxoo ne way yàqu naa way yàqu naa yéen a kaay gi xëy dañu xibaar na ñu moom na Fall Bouga Sali nee na nag gendarmerie ci boppam dina leen porte plainte te am na benn gendarme boo xam ne Abdou Aziz mbay la tudd nee na Abdou Aziz Mbaye ci boppam moo ko filmé moom Seydina Fall Bouga Sali nee na gendarme yi cinquante millions la ñu ko laajoon ngir nag gérer mbir mi yéen a gi moom Bouga Sali nag nekk fa naan maanaam lii lii rek laa yor si oto bi dafa am koo xam ne na yéen a kaay gi di source en tout cas li am kenn su ñoom daal nëbb na turam waaye nag nee na vidéo boobee daal dañu koo dugaloon ci dossier enquête bi yéen a kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall tey ji ma nga ca diwaanu Touba ngir nag amal fa inauguration hôpitalu Touba bi ba pare nag amal fa ay njaal ne ma ay condoléances yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy seeq waxtaan ak waykat bii di Jeyla Jeyla mi nga xamante ni nag maanaam mooy def buzz fi mooy def buzz journal bi nee na seen petit gàlle atum 2014 la ko gars yi am moom nag Dieyna daan nay wax ne musique daal mooy passion ma type nga xamante ni mooy maa ngi baax xamu siiw lool nee na nga xam ne maanaam moom la soo wax nag thème la boo xam da dañu koy dund bu yàlla sàkk maanaam doo dem du ma dem nit soo ko soxoree da nga koy a nag yokko ba tey ci bi moom Dieyna daan nay wax ne Kumba Gawlo mooy référence am yéen a kaay gi du l'Observateur wax ci lu jëm ci wàllum politique ak coalition Yewwi Askan Wi nee na ci biir coalition boobu dafa am benn duo ca biir mooy Barthélémy Dias ak ñoo xam ne radical nañ lool yéen a kaay Sud Quotidien xëy ci investiture yi ak Macky Sall mi nga xam ne dina am ay jafe-jafe lool ci biir benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñooy ay alliés ma yéen a kaay gi de Les dafa am ñoo xam ne dañu fa am ay compte dormant maanaam denc fa xaalis daal bàyyi ko fa kenn koo xam ne day liggéeyee CBAO maanaam moo ko doon ronk yéen a kaay de Stades xëy ci Premier League match bi war a dox diggante Liverpool tey jii a Crystal Palace Sadio Mané nag tey bu dugalee ci match bi dina dugal téeméeri bii ci Premier League ak club boobu di Liverpool yéen a na Tottenham Chelsea tey jii derby la Manchester